Poland nu vedea vei. Waaye ci dina nga rek lu ñuy tudd di ku baax ñu ngi leen dal di leen ñaanal yàlla yéen ñi jógalee yàlla leen yàlla suturaal yàlla leen yàlla musal rajo bu nekk yaa leen liggéey waaye réew mi ñi bëgg leen rajo bu nit ñi lu seen émission bi siira yal na yàgg sax te barkeel yal na ngeen yàlla xew ci làmmiñ waaye ak bëri waaye yàlla nga bokkal génération ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama lay gàllale tuuti ci ay fàq rek ah. bobu yoni alam alal yaa mi ijaar mi fi yoneen ayi tu ila la di di ma fi naa yi na wolo. Uwamu والذي شفيعها المقبول يوم الميعاد بوب يوم منقذهم من خليل بمساعيد كبير أزم في فلاتي كي موريان مكان جمدين नमो بالرفاق وخير ونعيم سما بالقبول الحق من خير خيرين أخذت على آيات الدور والدرائير moom day dund yaakaar bu ma lëggee mu yàgg noonu. yàlla si ginnaaw moom mu di ko si biir kàlla jàmm. yàlla yàlla barkeel sa kàlla فلما تؤثر كفلتي مريم يا محمد يا من على التي الذي وهب مريم يا محمد برمي الأخير جمدين أردت ما كنينا تحققا قد محمد حسين ما يومنا بجود أمد وهب لتقر مالا أنه لتاه يوم مالك بوفي أمد وهب لتقر مالا أنه لتاه ورب يروح المدينة نقل من غير جاهلية وصفاك ومروى دخل فيها إلى الله